ragal yàlla benn bi mooy yaakaar yàlla bala ñu cee ñëw ñu leeral tuuti loo xam ne tàmbali naa tasaaroo ci réew mi lool ñu ne jumaa ja nekk aliye fa Touba dañu fay tere ku jàng xasiida ak ku fa tudd Sëriñ Touba bu mu juumul maa ngi jàkkaarlook nii koo xam ne mi ngi yoroon téereb xasiida di ko jàng kon loolu moom ñi fiy jullee ñépp mën nañ ci seere gannaaw bu seere suñu borom weesoo bu ñu ñëwee ci tomb bi ñuy fàttalante day yóbbaale toog fi barab lu la neex wax waaye ki taxaw teg tànkam ci ragal yàlla ak yaakaar yàlla moom lu mu dugg mën na ca génn te bokk yi ragal yàlla ak ragal lu mu mën di doon lu mu mën di doon lu ñuy ragal ku ko ragalu danga nga koo yàpp du ma ko jëmee ci jëmmi suñu boroom waaye ku ragal lenn lu mu mën doon lu ñuy ragal ka ko ragalu daa yàpp loola te wolof wax na ba tàyyi ne yabu nga ci sama mbojj lool de waaye doo ca jële nag aw jalaw wolof léebu na ko ba tàyyi kon ragal yàlla mooy jox cër yàlla ci pas-pas ci wax ak ci jëf pas-pas ba ci jiitu mooy mu wóor ko ne bu toogee fenn defe ne moom képp fa nekk lu ko neex wax ku ko neex sosal ko na xam ne am na wéttal muy subhanahu wa taala yàpp ko nag weesuwut jàpp ne nekku fa ku jàpp ne nekku fi moom lu ko neex mën na ko wax waaye bis dana wéeteeg moom ba mu defee ni moom dong la yàlla bind ci jaamam yi wa kulluhum aatihi yowma alqiyamati farda doonte waxoon na fii ci àdduna ne maa yakunu min najwa thalathatin illa huwa raabiuhum mooy sunu borom wala xamsatin illa huwa saadisuhum wala adna min dalika wala akthara illa huwa maahum aynama kaanu aynama kaanu fu ñu mën a nekk bu ëllëgee nag thumma yunabbi'uhum bima amilu yawma alqiyaama inna allaha bi kulli ku ci sikki sàkka lu ko neex mën na ko wax waaye warees naa mën a yàpp ku nekk nag ba mu des sunu borom subhanahu wa taala yàlla nu ci yàlla musal waaye yaakaar yàlla yit moo ko ragal yàlla ñoom ñaar bi ma jëkk a tudd ay waru gar la ci ab jaam rawatina ab julit wu ko war digganteem ak sunu borom te du ko wàcc mukk li feeg mi ngi tuddoo baat boobu day xàq jum am ci nun yaakaar nag mooy koo xam ne xeeboo ko koo ne yaakaaruma la rek da koo xeeb dangaa xeeb man-manam xeeb am amam xeebam xelam xeet léppam yàlla na nu yàlla mosa ci loolu waxuma laa muy dox suñu diggante ak suñu borom ñii ma jot a tudd seeni tur euh, ñu jaar ci xat-xat yoo xam ne nit di ca jaarati dana jafe lu leen ci génn ragal yàlla ak wóolu yàlla rek tudd na fi seydina ibrahima alayhi salaam bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne yàlla moo ko ne bu yàlla nee na bu yonent bi nee na yàlla nee na nag te fekkut bokkut ak bokkut ak alquran am nañu ko tudde xadiis qudsi mu ne yàlla nee na jaamam bi moom sunu boroom subhaanahu wa taala fépp fu mu fabe yaakaaram wékk ko ci moom te yaakaar ja la ko ciy dimbale mooy yabeel doxul diggante mag moom ndax ragal na ko fu mu ko wooyee mu fekk ko laaj na ci alquran sax ci làmmiñu seydina ibrahima alayhi salaam a ifkan alihatan duna allahi turidun fama zannukum bi rabbil alamin bant yi ngeen fab wala ngeen tabax ko tudde ko yàlla di def di ci def lu nekk mu jaral leen lu ne waaw yàlla mi nga xam ne moo leen bind bind suuf seeg bant yi nag lu ngeen fu ngeen ko teg moom fu ngeen ko bëgg a féetale am na lu ngeen yaakaar si moom mbaa yebeel doxu seen diggante ak moom yàlla na nu ci yàlla musal seydina ibrahima moom yi ba muy wax yàlla nee na nee na nee na nee na ba fatanqala waa dëkk ba ak waa réew ma bañ teg ko loxo ba bëgg koo sànni ci bënn guñ taaloon bañ ko defee ca mbaq ga ba wëndeel ba mu xiir ñuy sànni da indi ragal yàlla indi yaakaar yàlla ju ma sëkk yàlla génne ko ca ndax la wax rek benn baat la xasbunallahu wa ni'mal wakil yàlla jox ndigal sawara sa mu sedd guy ba di ko bëgg a lor yàlla ne sawara sedd guy te ànd ak jàmm nag ci Ibrahima daan ne danañ xam ne saa su ne ñu jóge ki pexe waaye saa buñ pexee ba àggal ñay perte ñépp ñoo cay gën a perte wa araadu bihi kaydan fa jaalnahum al axsarin axsar mooy ki gën a perte ki gën a daanu ci kàmb gam doon gasalaate waaye bam rendi loo doomam sayidna ibrahima it alayhi salaam mooy sababus tabaski wa fadaynaahu bi dibhin azim ba mu demee ba màggat am doom bëgg ko lool yàlla ne xaar leen moom xam na waaye nit ñi lay wan pas-pasu sayidna ibrahima alayhi salaam ci ragal ko ak yaakaar ko mu ne ko rendi ko mu laaj doom ji doom ñu ne ko defal lañ la digal ba mu koy tër di ko rendi suñu borom wutal wutal ko ca am xar am xaaf wa fadaynaahu bi zabin azim loola it daf fay fësaat lool ragal yàlla gu ànd ak yaakaar yàlla képp yam ca yàlla na nu ko yàlla defal waaye beneen nabi bu ñuy wax zakariya kaaf ha yaa ayin saat ku ko jàng danga ci gis ayat yooyu ma jàng léegi is nada rabbahu nidaan xafiya qaala rabbi inni wahana al azmu minni ba aaya ba ak màggat naa sama soxna màggat te ëmmaguma takk ndeer ana lu tax mu di ko ñaan yàlla ca at yam toll woon ati góor sax mën naa dem ba yàgg lool di man di am doom waaye jigéen moom am na at yooyu bu ci àggee duutu ko yaakaar moom ci boppam waaye téewul ragal yàlla gi ragal nee woon naa ko ne ragaluma danga ko yàpp jox cër yàlla te yaakaar ko moo tax mu saral koy loxo ne ko may ma doom waxum mu doon doom kese kese waaye na doon doom ji ñëpp dégg yàlla may ko ko ci ragal gum ko ragal cër gum cër bum ko jox genn yabeel doxul diggante mag moom ca la dégg ñaanam nga ne ko yaa Zakariya inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya yàlla tudd na ko te juddoogul tolloogul sax fu muy feeñe ne kii mi ngeeg dara waaye yàlla moo ko ne may naa la ko nàngam lay tudd mu wër ko ne kon doom ji lay am waaye doomam jooju toog na fi ba yàlla naa ko yaa yaxya xudil kitaaba bi quwa wa aataynaahu xukma sabiyan wa xanaanan min laduna wa zakatan wa kaana taqiya moom yaxya wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa salaamun alayhi yowma wulida wa yowma yamuutu wa yowma yubcasu xayya waaye sayidna Muusa alayhi salaam it fa watil wadaan jaar la wat moom itam ragal yàlla gu ma sëkk ak yaakaar yàlla bi ko ndigal dabee mu war a woote woote ba moom itam fatanqal firawna ak nguuram la jël leen wit ak jaar-jaar yu bari yam jaar daa xëy xëy ni ko génnal dëkk bi te fekk Seydina Moussa daa am ndigalul génn dëkk bi rawale pas-pasi nit ñi bala ñu leen a faagaagal ñoom ñëpp ba ñuy dem ba geg ci géej ga na yëg ko di leen dab bañ ñëwee ba séen leen ba boo sànnee ak fitti sax mën naa jëm kenn nit ñi toppoon Seydina Muusa tàmbalee dengi dengi ndax xat-xat rek ne ko waaw li ñu dugg yaa ñu si dugal gaa yaa nga nee nag ak agsi nañ daanaka inna la mudrakuun ñoom luy dox lañ yor te ñun dañuy dox suñuy tànk ñu ngi ni sës ci géej gi géej génn suñ kanam gaa yaa ngi suñ gannaaw yor ay gannaay te faagaagal leen mooy faagaagal nu moo leen tax jóg léegi nag xoolal noo ñuy def sidna Muusaa lu mu def dina yàlla yaa ma wooteloo maa ngi nii gaa ñaa ngi nii yàlla ne ko yat wi nga yor eh, laajoon naa la ma tilka bi yaminika ya Muusa loo waxoon mu ne hiya asaaya atawakkau alayha wa aw yat bu doon bu yor yam ca waaye da ko ne lii ma yor nii sama yata samay at tax na su may dox ci lay sukkandiku di dox mooy sama ñetteelu tànk bu ma bëggee wàññi sama jurit moom laa leen di wàññee waaye it leneen lu ma soxla it yeneen yitte yu bari yu ma mënta lim ku ne xam na aaya ba ca ak la ca ci ay xarbaax qaala alqiha ya musa fa alqaha fa ida hiya xayatun tasa qaala xudha wala taxaf mun na ko yat woowu nag dóor ko ci géej gi rek werante wu ca ragal yàlla ak yaakaar yàlla ga tax rek mu def la mu ko waxoon mu mel ne lii ñu xam léegi ci jéggi ndox muy ab pom pom boobu ñépp jéggi jàll ya ca topp toppaat ca waaye foofu mooy xat-xat ba mu toll woon ragal yàlla gu ma sëkk ak yaakaar yàlla képp yemalewu ko dara moo ko ca génne woon yooyu ñu tudd nag ak ñu tuddul yépp ba ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa ba mu amee ndigalul gàddaay ànd ak seydina abu bakrin siddiq ba gaa yi yëg leen di leen topp mu dugg ci am xunti la ca xew xew ca foofa it mooy ragal yàlla rek ak yaakaar yàlla xam ne yàlla bu joxoñee moom boo dëpput da nga taseeg lam la digoon id axrajahu alladina kafaru thaniya thnayni id id yaqulu li saaxibihi la taxzan inna allaha maana fa anzala allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa jaala kalimata alladina kafaru sufla wa kalimatu llahi hiya al-ulya ñi ko doon dab si ci biir xunti moomu xar baax yañ fa fekk euh, yiñ seetlu yiñ gisute ko gën a yéeme euh, ulama u siira nee nañ am na koo xam ne benn tànkam fi mu ko teg bu xooleen ci suuf rek gis seydina abu bakar sallallahu alayhi wa sallam tëdd ci kawam waaye nag yàlla mooy wane ay gëti kese kese du tax nga gis dara fa innaha la taamal absar walakin taamal qulub allati fi euh, tax mu ñëw tàgg faag jargoñ mu fa lënd yooyu yépp la leen tee gis mooy ñooñu dañoo tënkoon ci ndigalu suñu borom rek yam ca képp ragal ko yaakaar ko Seydina Abu Bakrin Siddiq moom moom ragal yàlla ga yaakaar yàlla ga mëni su ko wax moo ne woon lu yonent bi wax rek lu Muhammad wax rek ginnaaw ci làmmiñam la génne wax na dëgg moom la sëriñ bi wax ne li koo ko doon wax na di su fa jàng xasida maa ngi bëgg a jàng ay xasida ay yoo xam ne yii maa ngi nii bind ko tiim ko waaye mokkaloon naa ko bu yàgg bi ankabutin nasajat wa min xawaariqa ba daal a tàmbalee maa xaaza xaarul muqtada salla alayhi man hada bihi dawi tafahumi bi ankabutin nasajat maa xamaamin athbatat xawman bihi qad satarat zaatayhima ka zulami walkaafiruuna qad ataw wa athara almaahi qafaw wa minhu shay'an lam yaraw wa rajacu bil alami wa huwa zu tasatturi maa al atiqi al akbari fi l gaari mara nadari wa ma ra'aw min arimi xima al xafidi al maanici yugni an al madaafici li kulli abdin xaashici yatlubu xayral xurumi kon na nit ñi delloo si seeni xel bu baax ci ragal yàlla ci seeni wax ndax koo ne ragaluma la rek danga koo yàpp yal nañu yàlla musal ci baat boobu dox suñu diggante ak suñu boroom te mooy léeg-léeg rek nga jàpp ne yow doo nga fa nekk yàlla nekk fa waaye yal yàlla dimbali it bañ yaakaar yàlla képp yam ca ndax ku yaakaar yàlla yàlla du tas yaakaar mukk kon ragal ak yaakaar yal nañu yàlla dimbali bañ bañ koo teggi suñu diggante ak suñu boroom di jaale nag ayu bés yi yàlla wan nanu boppam jële fi ay réew yu bari sabab yi nag bari na noonu la ko yàlla jubloo téewula seetluwaat téewula daf lee góorgóorlu ci moytu waaye ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla yërëm ñu ngi fi bàyyi ci ay bokk tey suñuy bokk ndax kenn ku faatu ci doomu aadama rek doomu aadama yépp ko ñàkk ndax yàlla indiwu ko fi woon rek ci neen maa xalaq na samaa wal arda wa ma baynahuma baatila su ko defee ñi ñu fi bàyyi it yàlla na yàlla may te bàyyi leen fi may njàgg leen ñaanal ñi yor daamari it ñu gën a delloo dolli farlu gi bàyyi jëkkante bi bàyyi teg bët ci alal kase kese ndax kat loolu ñuy liggéeye lu ne lu baax mën nañ ko caa jële fu waaye dem di fi mën mën a jëlee lu baax nag leneen li ko fa yóbbu mën na ko faa jëlee yàlla nañu ci yàlla musal yàlla nañu yàlla dafa dégg ak topp te saxal nu ci ragal yàlla ak raa yaakaar yàlla te dimbalal nu boppam ba yàlla bu mu doxalee suñu diggante lu ñuy toppante ëllëg ndax kat àjjana li muy neex neex suñu borom nee na ci alquran am na ñu fay dugg ñoo xam ne daa am lu mu dindi ci ñoom ñu door a dugg ñooñu seen dugg aljana am na lu dox ak lu koy lu koy teree neex na mu war a neexee dëgg dëgg dëgg dëgg udxulaha bi salaamin aminin yàlla nu ci yàlla boole waaye nag yàlla nu yàlla dimbale bañ bañ a bokk wa nazaana ma fi sudurihim min xillin ixwanan ala ixwan ba aaya ba fii la li muy dindi si ñun ba bu ñu dem aljana ëllëg set wicc nekk fa xel mu dal waxtaan nañ ko ba tàyyi fàttalente nañ ko ba tey bopp bu tuuti sedd guy moo gën fuuf bopp bu yawee ko toll nu nekk boroom bi xalaat tëdd guddi di xalaat li mu wax diw tëdd di xalaat li mu def diw loolu amut leen lu ci neen digganteem ak sunu boroom ëllëg kat dana am ñu jàkkaarloog téere biñ biñ def seeni mbir ñoom ñëpp fi muy waxee ne fa euh, fa amma man utiya kitaabahu bi yaminihi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiran wa yanqalibu ila ahlihi masrura ku jëlee loxoom ndeyjooram ab téeréem na rafet njortu ci ne lim ciy jàng lépp ñëpp dana ko mën a dégg waaye wa amma man utiya kitaabahu waraa zahrihi fa sawfa yadcu thuburan yàlla na ci yàlla seen ab téere fekk dañ caa am ndigalu jàng duñu sañ a bañ iqra kitabak kafa bi nafsika al yawma alayka xasiba tey yoway wax li nga defoon lépp yawma tubla sarair am na ñuy jàng ne yaa waylatana ma li hada al kitab laa yugaadiru saxiratan wala kabiratan illa axsa ay waj moom fu mu jëm ak bii téere téere boo xam ne loo mas a def lu mu tuuti tuuti ak lu mu rëy rëy dara umpewu ci ndekete wa wajadu ma amilu xaadiran waaye ñi naan tam lépp adduna la yam nangam adduna la ay caaxaan la ku ko wed ku ko wed rek ku ko saxal rek wedd na alquran wa kullu cheyin fi zubur wa kullu saxirin wa kabirin mustaqbal yàlla noonu yàlla defal dëgg ak topp te musulum cheytaan nekk bakkam lana wa lakum wa li saa'iril